ci ab ndajeek waxtaan ak i tamit weccoo ci lu soxal nag projet bile ñuy dippee cadastre et sécurisation foncière ci la nag mbooleem chef de service yi ak i tamit ki nga xam ne moom mooy chef de l'exécutif régional doon xaytu jëmale ci wàllu wi nu mel lanu ca jublu nag bokk na ci naal ay waxtaan jëmale ko ci projet bi adjoint au gouverneur bi nga xam ne moom moo yor lépp lu soxal wàlluk administration dal dinay dellusiwaat ci solo si nga xam ne ndaje mi am na ko. ñu ngi ci département Bambey ñu ngi ci département bu euh, Diourbel ñu woo ñëpp ñu toog ñu toog ñu pencoo ñu waxtaan xool naka la mën a def ba mën a xam ne daal léegi luñ bokk suñu ñoo ñoom ñoo ko bokk naka la ko mën a gérer ba jafe-jafe la loolu nag moo tax tey ñu toog di waxtaan te yaakaar naa projet bi bu demee ba ci kanam mu ne cinq ans lay am fii euh, euh, cinq la war a am durée naa bu ngir nag doxalin bu mucc ayib ak i tamit service foncier yu tegu ci yoon loolee tax ba ab système d'information projet bile dana ko taxawal la mu ca jublu nag bokk na ci fexe ba askan bi gën a mën a jotee ci système d'information bi nu mel. dañ leen tabaxal lu ñuy wax bureau foncier ci wàllu xarale yu bees yi dinañ leen wax indil li ñuy wax système d'information foncière dinañ leen jàppale ci formation. déjà agent foncier bi nga xam ne commune bi recruté na ko fii may wax ak yow nii ñu ngi leen di former fële ci Dakar dinañ former commission domaniale bi mairie ci seen bopp dinañ leen former administration territorial également di leen jàppale ci formation bi ba nga xam ni acteurs yëpp ñoom ñooy jógandoo songandoo projet bi du waa set kese dañ koy liggéey ak acteur yëpp. projet cadastre et sécurisation foncière taxawaayam nag du lenn lu dul fexe ba ñàkk li nga xam ni moom mooy suuf si ngir nag ak suqaleeku dal di mën a am ci sunu réew ci loolu sax lu yem ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay gox jot nañu leen a tànn ngir nag tàmbalee fa projet bi nu mel ab tàggat gu yaatu jagleel ko agent foncier yi jamono jile ñu ngi koy amal. yéen ñi bëgg topp suñu programme TV wala rajo te yore appareil Android mën ngeen télécharger suñu ci www.almouridia.com bu dee yéen ñi yore iPad wala iPhone mën ngeen télécharger suñuy application ci Apple Store wala ci www.almouridia.com Almouridia à la découverte de l'univers Touba.